yu mën a def lu tolloog juróom benn junni ak ñaari téeméeri tonnes ci gaz. lobu maam jaaro buso jiitu ci senegal ak li ko wër juróom ñaari carrousel boole fukki bascule ak ñaar yu automatique ak juróomi bascule manuel moo ëmb suñu ligne de production mu mën a jur lu toll ak juróom-ñeenti junni butéelu gaas ci waxtu ci senegal yépp ci lu wóor te du manqué. gaz nekk mbir mu doy waar.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 تقباي الحمد لله الذي أغناني وأعزني lu sax si xolu doomu aadama ba foo ko tudd xol yëpp ay feex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 tout ñi ngi nekk marché Tilène rue 19 angle 18 téléphone 77 462 41 41 ou le 77 681 57 38 ou 77 924 45 20 dama ni neexul ba neexul waaye or bi jég ji bëgg noo boutique Zamzam rek la alhamdulillahi alladi أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم laka alhamdu ya rabbi kama yanbaghi li jalaali wajhik wa azimi sultaanik allahuma salli wa barik ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax di am mbégte ci yàlla num ñu baaxee ay soppe yu mel ni yéen ay àndandoo yi mel ni yéen di ñaan borom bi subhaanahu sopp bi ñu soppante ak ànd bi ñuy ànd ci diine te yàlla tax yàlla na woy continuer ba aljanna firdaws ñu ànd ak yenent bi ak saxaaba yi tedd nit baax ñëpp kenn bañ a manki kon loolu mooy li ñuy ñaan di ko tibbee suñu xol di ko jëmale ci yéen ñuy ànd ak yéen ci Ali Imran TV eh, ci suñu thème bu am solo ma pour émission boo xam ne yaakaar naa ni euh, solo bi mu am jéggi na fañ ko natte ndax ñaan dafa rëy muy falsafatu du'a ñaan jaamu yàlla boo xam ne dafa kawe lool kon suñ ci waxtaane dafay am solo lool ci ñun ñi nga xam ne ñoo ñun la yàlla nattoo ñu koy waxtaane euh, waaye tamit képp koo xam ne yaa ngi koy topp rek yàlla na amee noonu wala lu rawee noonu solo ci yow tey ñu ñëwaat ci philosophie bi nga xam ne moom lañuy ñuy véhiculer ci wàllu ñaan di ko faramfàcc tey benn point benn tomb mu gàtt lool du gudd laa ci indi mooy soo bëggee yàlla nangu sa ñaan nan ngay def soo bëggee yàlla nangu sa ñaan ngay ñaan mu tëla ngay ñaan mu yéex ngay ñaan muy tag am na yoon raccourci bu gaaw lool lool lool lool boo xam ne ku si jaar autoroute la boo xam ne du ma ne autoroute à péage la ndax péage dangay ngay fay waaye bii doo fay dara c'est gratuit doo fay dara amul coono amul buuxante amul dara waaw juste autoroute bii la mooy li nga yéene sa bopp bëgg ko nga koy ñaan yàlla ñaanal ko sa bokk jullit allahu akbar dangaa bëgg gudd fan ak wér nga toog ñaanal sa benn bokk moo xam ne moo xam dalaa jege su ma nee jege mooy ci wàllu deret ci wàllu famille wala dalaa sori sori bi mu jublu si koo xam ne bokku leen famille bokku leen deret ci gàttal ngi koo xam ne yàllaa leen boole muy sa mbokku jullit tuuku ñaanal ko gudd fan ak wér li tax philosophie bi mooy ba nga koy ñaanal yàlla ngi yebal ab malaayka boo xam ni moom uniquement li tax muy ñëw li tax mu teew sa kanam mooy boo daanelee rek mu ne la yow itam yàlla na la yàlla defal lu mel nii la nga ñaanal sa mbokk moomu la bi te ñaanu malaayka yàlla du ko neenal dafay nangu kon ça veut kon sa ñaan nangu la bi nga ñaanalee sa mbokk jullit li nga bëgg yàlla nangu sa ñaan ci malaayka bi nga xam ne moom it def la delloo ñaan bi ne yàlla na ko yàlla defal kon lii mooy tey liñ leen indil ci falsafatu duha mooy ngay ñaanal sa bokk jullit ci absence am te yëgu ko xamu ci dara waaw yëg yëgul tinul nga toog di ko ñaanal wala sa xel dem ci moom nga ñaanal ko yàlla nangul maanaam li lépp loo ko ñaanal ne xamal ne yow sa bos taxaw na ba pare garanti na ndax yàlla yebal na malaayka boo xam ne moom it dalay ñaanal la nga ñaanal kooku de allahu akbar kon ndeke mbir yi wul yomb na is very easy très facile yeneen tib salaa salaam nee na inna hada diina yusru mu ne diina bi dafa yomb dafa facile inna day certifié certi que ah, cette religion est facile ah, lu wér ba wér te kenn du ko laam-laamee diina ji dafa yomb dafa neex kon xoolal lii rek ndeysaan kon ban falsafa lañ war a am si ñaan bokk na ci mooy suñu bëggee suñu ñaan nangu mooy ñuy ñaanalante ci sutura waaw ah, si sutura di ñaanalante ci sutura ki ngay ñaanal xamul ne sax yaa ngi koy ñaanal amaana sax mu jàppee la noonu amaana sax moom tegu la dara amaana sax li ngay dund sax moom moom ci ñi sabab si la bokk waaye nga toog di ko ñaanal yàlla yàlla nangul la yow sababu lan ñaan bi nga koy ñaanal allahu akbar kon lii allahu akbar yàlla nañ ko yàlla defal yombul lu dul ko yàlla yombalal ndeysaan nga mun a toog fàtte sa bopp ñaanal sa mbokk jullit lii mooy lislaam lislaam lii mooy li nga xam ne moom lañu war a góor góorgóorlu dëgg-dëgg gis nga julli woor yëpp yooyu ay principe la pour ñu ràññee ñu rendez la suñu diggante ak suñu borom boo xam ne mënta ñàkk ay jullit yooyu waaw mënta ñàkk mooy un leneen ñëw nekk zéro zéro zéro un yi am valeur parce que un kese am na valeur mais boo si dollee zéro ah day gën a am valeur parce que dix lay doon nga yokk beneen zéro mu nekk ñaata cent nga yokkaat mu nekk ñaata mille nga yokkaat mu nekk ñaata dix mille noonu léegi boo egg si million ñu egg ci pour temps ay zéro kese la mais gis nga ni muy yokkee. mais bu fekkoon ay zéro kese kese nga am mille zéro est égal zéro rek waaw julli nag noonu la mel julli un la leneen lu ñëw nag day nekk ay zéro waaw moo tax kon julli kese kese kese kese un ngay am te yaakaar na kenn suñu mun bëggul am un kese yam fa waaw bëgg na am dix jëm kaw kon si lii lañuy rawante yii dañuy amee ay zéro yu bari yoo xam ne day ñëw wékku valoriser un bi nga xam ne moom la ñu am muy julli kon mbokk yi xol yi sell yi xol yi rafet yi yéenante jàmm ñaanalante dimbalante lii mooy lislaam kon li lañ leen indiloon tey ci falsafatu duha la philosophie de l'invocation wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu وجهت كلي بحمد وشكر إلى ولي المؤمنين وسكون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 الحمد لله الذي أغناني وأعزني ngir jotaayu lekk bu nekk doon waxtu bànneex lobb Maam bu soo ngi leen di gunge lu ëpp ñaar fukki at ci seeni biir kër féete ak kilomètre ci yoonu Tëngéej fii ci Ndakaaru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 te it ngeen yelloo li gën lobbu maam jaaru du jóg si di indi lu bees di xoolit fu gën a sori. alhamdulillahi alladi agnaani wa aazani. du Tocobay. alhamdulillahi alladi agnaani wa a'azzani lu sax si xolu doomu aadama ba foo ko tudd xol yëpp ay feex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 nous ñi ngi nekk marché Tilène rue 19 angle 18 téléphone 77 462 41 41 ou le 77 681 57 38 ou 77 924 45 20 dama ni neexul ba neexul waaye or bi jeg ji bëgg noo boutique Zamzam rek la alhamdulillahi alladi